asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy seetaan tey ñoo ngi nekk si biir Equivox TV mu doon suñ premier numéro bi nga xamante ni moom lañ fiy def di sant di gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fi indi bu baax a baax mu doon benn boîte boo xamante ni lider la ci côté li nga xamante ni mooy numérique daf ay résultat yu bëri si biir Sénégal te nag ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni moom mooy monsieur Navel Thiam doon responsable APR. fi nga xamante ni moom mooy département Ndioum don ki nga xamante ni aussi mooy chargé de communication bu Aprosy Navel ñoo ngi lay bàyyi nga nuyoo suñu mbokki internet yi si biir Equivox TV di leen fàttali ne émission moo li nga xamante ni moom mooy ganu Equivox Navel allez-y. asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku internet yi yëpp ñoo ngi leen di nuyu vraiment di leen di euh, wax ni mbax. Eh, di kontaan vraiment si woote bi si invitation bi ngi ñu defal tey vraiment pour ma ñu mun a jàkkaarloo eh, askan bi mun a jàkkaarloo ak Sénégal pour mun a vraiment exprimer si tuuti si lu ñu xam. jërëjëf euh, Navel Thiam dañuy dugg si waxtaan bi di waxtaanee li nga xamante ni moom mooy Aprosy nga xamante ni yow yaay seen chargé de communication pour nga waxal ñu yan mission ak yan rôle lañ ko denk ci biir Sénégal mu war ko doxal. donc euh, ginnaaw euh, nuyoo waa plateau bi nuyoo mhm. kër gi yëpp mhm. donc euh, may ma aussi mhm. ma nuyoo sama mbokk samay mbokk ñi nga xamante ni yi si jiitu mooy sama ñaari waajur ñi nga xamante ni ñu ngi fee si njum si na Toro ñi si topp mooy que sama base politique Navel Thiam ñi nga xamante ni ñi ma taxawal ba ma mën a egsi fi ma egsi tey mhm. donc ñooñu awma seen payoor mhm. donc di nuyoo waa Ndioum yëpp mhm. di nuyoo waa département de Podor yëpp vraiment di kontante boo ma kiyee sa question bi nga ma laajte léegi si APROSI APROSI agence d'aménagement des promotions des sites industriels jërëjëf mu ngi créer depuis quatre vingt 82. 82 Aprosi la créé Aprosi dafa nekkoon fale moo nekkoon Sodida fale si Castor foofu lañ ko créé en 2000 président Abdoulaye Wade bu mu ñëwee si réew mi si la ko bëgg a yaatal mhm. Aprosi bañ a yem fii si dakaar Dakar kese mhm. ñu defaat ko si loolu ma indi ñu dindi Sodida bi defaat ko Aprosi mhm. agence d'aménagement des promotions de sites industriels donc depuis 2000 Aprosi la commencé dérouler ay activités yam euh, fii si réew mi. Mhm. yan mission lañ tenk à projet parce que suñu waxee si industriel ñoo ngi wax si wàllu xëy ñoo ngi wax si wàllu industrie yéen yan mission nga xamante ni moom ngeen war a def si Sénégal ndax mën leen ko xam. donc euh, boo gisee tey euh, gouvernement Macky Sall. Mhm. tey lu ñu doxale mhm. nga xam ni lépp tey loo mënti def si adduna bi. industriel la. donc bu ñu jëlee zone industrielle yëpp mhm. ñu denc denk ko euh, Aprosi mhm. vraiment mission bu rëy la mhm. ñun ñooy euh, euh, aménager terre yi ñun ñooy joxe construction les hangars yi nga xamante ni gis nga ko fale si Diamniadio donc partout tey si Sénégal région bu nekk am nañ foofu ay hectares yi nga xamante ni pour zone industrielle bi nga xamante ni état bi moo ko war a liggéey fépp si Sénégal fépp si Sénégal. Mhm. donc am nañu Ziguinchor am nañu Ziguinchor mhm. am nañu Saint-Louis mhm. am nañu Fatick am nañu euh, Kaolack am nañu partout un peu partout ñu ngi sax jéem a créer sama fief bi nga xamante ni au nord du pays vraiment pour ñoom tamit ñu am foofu benn zone industrielle. ngeen di def en terme de création d'emploi nga xamante ni récemment le président de Sénégal mu ngi génne j'ai message et j'ai en terme de création d'emploi fan ngeen ci toll kon. bon si en termes de d'emploi. Mhm. Euh, tey parce que yaa ku wax industrie wax construction di nga wax emploi. Euh, très bien bien sur donc tey boo gisee si emploi. Mhm. au niveau de ñaajo kese. Mhm. fii si Dakar. Diamniadio kese ñu ngi fa créer li nga xamante ni plus de 4000 emplois mais ci quate 4000 emplois yi. am na 4000 emplois la ñu war a def ñaajo employés ñoo war a xëy jëm ñaajo mais pour l' instant ñu ngi si presque moins de deux mille emplois yu commencé nañ la moitié ñu ngi foofu di liggéey donc ñu ngi si euh, xam nga def nañ foofu ma ne la hangar yi ngi def foofu mhm. dañ koy jox mhm. citoyens sénégalais yi mhm. boo gisee tey les masques yi ngay sol foofu lañ koy defaree boo gisee tey tuba yi ngay sol les kakila et tout foofu lañ koy defaree. est-ce que citoyen citoyen sénégalais yi donc ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo mooy sénégalais yi est-ce que ñoom donc ñoo fa am ay industrie mais bien sûr parce que sénégalais rek ay chinois nekkul wala ay étranger nekkuñ fa. mais même bu amee chinois benn chinois. Mhm. am na foofu benn chinois bi nga xam moom moom benn hangar. kun tamit kun sénégalais yi dong nekkuñ fa. mais séné mais hangar boobu. Mhm. mais c'est sénégalais yi ñooy liggéey même le DRH. Mhm. directeur yi personnel bi ñëpp. c'est des sénégalais ñuy liggéey foofu. amul benn chinois wala benn tubaab wala beneen kii bi nga xamante ni ñu ngi liggéey foofu. est-ce que sart yi nga xamante ni réew mi wax na ko ne entreprise nii lañ war a doxee industrie nii lañ wax war a doxee est-ce que dëppoo neen ak loolu ñoom. Ah, attribution yi naka la demee seen diggante ak yenn. mais c'est c'est loolu kay euh, lu leer la tey boo gisee euh, approche yi tey au niveau de Diamniadio ni ñu doxalee. Mhm. tey nga indi benn euh, investisseur ñëw vraiment bëgg Euh, bëgg am benn benn comment dirais-je benn benn hangar. Mhm. pour créer parce que am na des carte numériques am na foofu. Mhm. waa numérique ñi ngi foofu. Mhm. des cartes des y' a pas mal de choses yi nga xam ne ñuy defar ay coton ñu defar ay ay seau ñu defar ay sajaade ñu defar ay bassan ñu defar ay lal ñu defar lépp ñu ngi foofu et puis li ma la yëpp. c'est des sénégalais ñi nga xamante ni ñu ngi dund foofu. ñu ngi xëy ak ñun foofu tous les jours ñu ngi liggéey di lundi au vendredi. kon donc en charge en tant que charge de com bu Aprosi confirme nga carrément ne Aprosi mooy ah, très bien parce que tey. te xayma euh, moo ngi àgg yaa wax ci 2000. oui mais parce que boo gisee tey Aprosi euh, def liggéey bu mucc ayo bi mhm. bi ñu def ni parce que tey ñun ñu ngi jàpp ni Aprosi lu muy def si réew mi. amul beneen structure wala beneen euh, euh, société wala beneen entreprise bu koy def parce que approche yi lii yëpp ba nga gis président parce que président loolu mooy euh, yiteem nan la ñu ndaw yi Sénégal yëpp amee xëy ndaw yi ñëpp mënuñu amandoo xëy mais la moitié au moins que ñu amandoo moitié sénégalais yi ñu commencé am xëy. mais ci biir loolu en tant que Navel Thiam li nga xamante ni moom mooy approche yi ñu ci nekk yan jafe-jafe ngeen di dund approche yi yan jafe-jafe moo fa am. jafe-jafe mënul ñàkk. Mhm. jafe-jafe moom vraiment mënul ñàkk mais jafe-jafe lu munta am bu dee interne si ñun waa approsi mhm. ñu ngi koy gérer suñu biir mhm. mais jafe-jafe moom mënul ñàkk fenn. mais pourquoi da ragal a wax si jafe-jafe yi nga dem ñu créer le problème wala moo xam. Euh, fekkee jafe-jafe am na yan jafe-jafe moo am Aprosy. mais ñun man mënuma mënuma ragal dara dans ma vie. mais kon yan jafe-jafe moo am. Aprosy képp képp ku xam. Mhm. Navel Thiam est-ce que yow jamono feebaroo fi woon sax si côté prise en charge wala yenn ki sax mu naqadi woon la affaire yooyu noonu ba nga si coow Aprosy Navel nga wax ñu ko exclusivement si biir Equivox. mais loolu loolu mu loolu laa wax ni lépp bépp problème bu boobu noonu dañuy wax navet fii nii. si biir euh, Equivox nu mu demee woon. ak Approsi lan la ci deful. dama ne. Mhm. problème bu ñu munta am ci biir Approsi. Mhm. ñu ngi koy régler interne ñun ak waa. Approsi mais donc problème am na Approsi. munu ñàkk fenn fii nii am ngeen fi problème feneen am na problème non fépp am problème problème c'est-à-dire que bu fekkee ni am nga jafe-jafe mhm. saafara nañ la sa jafe-jafe mhm. donc y a pas jafe-jafe mhm. amul jafe-jafe mais yow feebaroon nga fi ba ju wax fi sax yow ak directeur bi li nga xamante ne carrément mooy si feebar bi mais loolu banque envoyé message mais loolu bu génnee bu génnee waa après yi ñoo ko génnee man en tant que Navel Thiam mhm. ba mu amee problème si personnel euh, si APROSI wala am problème ak directeur général de l'APROSI mhm. dama koy régler sama diggante ak moom mhm. ma dama ko régler mais vraiment ni nii nii nii dama koy régler ci biir ci biir boîte bi laa koy régler mais jaa yow jàpp nga ne carrément jafe-jafe am na fa non jafe-jafe ma ne la fépp structure boo gis entreprise boo gis société boo gis am na ay manquement mais manquement boo gis aussi bu dee ni ñu ngi koy réglé da ngay wax ni jàng manquement boobu amul. mais sa digganteeg sa sa digganteeg le directeur yan jafe-jafe moo ci nekk wala. non suñuy digganteeg directeur amuñu benn jafe-jafe. Mhm. vraiment euh, il faut que ñun ñi aussi. Mhm. Euh, may mhm. euh, nit ñi liggéey. c'est-à-dire que tey. directeur général mu ngi foofu plus de six ans sept ans. et mu ngi liggéey. bu liggéeyuloon président Macky Sall jëlee na ko fa bu yàgg. et il est en de travailler. et mu ngi def vraiment feu et flamme. mu ngi liggéey liggéey bi nga xam ne mucc ayib. mais soo waxee ne en terme création d' emploi ngeen ngeen 2000 impact boobu noonu Sénégalais yi pourquoi pas seen côté comme wala lan moo tax Sénégalais yi loolu yëguñ ko c' est liggéey bi am na foo xam ne am na jafe-jafe. non jafe-jafe amu foofu xam nga boo boo créer des hangars. Mhm. nga joxe ko entreprise yi. Mhm. entreprise yi commencé doxal. Mhm. di xëy. di wàcc. yooyu xam nga emploi boobu vraiment ñun tey euh, si si ci biir structure approche rek. man tey boo tolloon Aprosi euh, en deux mille euh, deux mille douze deux mille treize ñu ngi woon presque ay vingt huit personnes trente mais tey double nañ euh, personnel bi. ci biir Aprosi ci biir Aprosi. kese wax waaw waaw. avec des contrats yu demee noonu. et que contrat yoo xamante ni CDI CDI. Navel yaa ngi confirmé de. non je vous dis Aprosi bi ay contrat CDI. oui. mais parce que approche yi toll na foofu. tu confirmes mais parce que ñun dañu nekkoon si yenn niveau yi mais tey. waruñu sax nekk niveau deux. niveau un la ñu war a nekk personnel bi ñaata la kon. mais tey bon c' est moins de cent. moins de cent. oui ñëpp am CDI. bien sûr. moins de cent personnes. mais boo jëlee ñi def foofu stage matul sax matul ñu si des yëpp ay contrat euh, CDI la ñu am. ñu si des yëpp CDI la am. oui ça je vous confirme je vous dis ça. ok merci mm-hmm. beaucoup Navel mm-hmm. Thiam mm-hmm. léegi tey soo amoon benn kàddu booy wax sénégalais yi nga xamante ni mooy ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi dem di uuti liggéey amuñ liggéey liggéey bi jafe ak hangar yu ngeen yor ak création d'emploi ban yoon la ñuy jaar pour àgg si liggéey yooyu noonu mën ko jëriñoo donc liggéey boobu pour euh, nit ki mën a mën a dem ba am yenn euh, yenn possibilité pour am emploi ci biir euh, Diamniadio wala ci biir Approsi donc da ngay jaar fi ñu war a jaarale mhm. jaar c'est-à-dire que nga yor sa CV mhm. nga déposer ko fi nga ko war a déposer. fan fan mais déposer ko au niveau de la Prosi. Mhm. foofu am nañ foofu euh, benn bureau de courrier. boo ko déposer foofu. ñu ma xool. bu dee yow communication nga def wala comptabilité nga def wala lan nga def ñu xool bu dee ressources humaines ñu xool ressources humaines war nañu foo am ay manquement mais c'est à part à base de CV bi la ñu xool yan année bi yan manquement la ñu am wala ñan ñoo dem retraite retraite bi base bi si la ñu soxla si lañu loolu la ñu sukkandiku pour vraiment mun a recruter des gens. jërëjëf. Mhm. ñoo ngi leen fàttali ñoo ngi si biir Equivox TV. di wax suñ mbokk internet yëpp di ñuy seetaan na ngeen dem abonné si site bi di ñu gën a encouragé bu baax di commenter li nga xamante ni moom la ñuy def loolu moo ñuy gën a sawarloo pour ñuy gën a toog di waxtaan ak yéen Navel Thiam dañuy dugg suñ deuxième parti ñu dugg ci parti politique bi nga xamante ni moom nga nekk di biir APR yaakaar depuis 2008 ngay milité fi nga xamante ni moom mooy njug seen parti bi léegi doy na waar de <laughs> suñu parti euh, bu doy waar day mel ni yenn parti parti parti euh, yëpp dem nañ ñoom Moustapha Cissé Lo Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoo teewoon APR jamono joo fa nekkee 2008 c'est-à-dire ñi nga xamante ni ñoo togg APR ñu bari gisatuñ leen ci li nga xamante ni mooy appareil bi ko ça waaw loolu de wax dëgg yàlla loolu moom duñ ko rafetelu rafetlu woo ko non non tey ku mel ni Moustapha Cissé Lo ku mel ni Moustapha Diakhaté ku mel ni ñooñ ak ñooñ ñi nga xamante ni c'est des fondateurs de l'APR mhm. ñooñu bu ñu gisee tey nekk duñu suñu ñoom Alioune Badara Cissé le numéro deux du parti ñooñu bu ñu leen gisee tey mhm. ñi nga xamante ni ñu ngi beneen sens mhm. wala ñu ngi taxaw fale di wax discours bu bokkut ak bi waa APR di wax mais loolu kenn du ko rafetlu parce que man man ne dama koy ñaawlu parce que c'est des ñoom ñoo nekkoon pionnier pionnier APR si euh, réew mi donc ñoo créé ndoo parti bi defandoo lépp jàmm ak salaam rek la ñuy sekkante ak ñoom ñëpp tey bu ñu gisee nekkuñu suñu côté loolu vraiment lu ñu war a ñawlu la kenn du ko rafetulu vraiment mais ñuy ñaan nag. kun yow àndoo si décision bu parti bi jël carrément ñoom ñu nekk à l'écart. Euh, soo ko rafetluwul rek àndoo ci. non c'est que cest que tey. soo ko rafetluwul àndoo ci. xam nga loo gis si àdduna. Mhm. waxtaan la. Mhm. man ba ma jëlee sama position xam man euh, li ma ragal si àdduna rek gisuma ko mhm. li ma bëgg a wax wala li ma xalaat noonu laa koy waxee du ma jëw ma nekk si télé wala ma ma bañ a nekk si télé fu ma taxaw position bi ma yor boobu laa yor. kon APR ñii ñooy bum di bumi wala parti dictature la wala nu mu demee noonu. non pas parti dictature. loo gis dama ne waxtaan la. Mhm. ñoo ñii di tey nga xam ne nekkatuñu suñu wet. Mhm. c'est sûr que bu ñu toogoon ak président Macky Sall solo solution day am ban proposition ngay def. bon proposition bi may def mooy que di ñaaxaat. son mhm. excellence. Mhm. bi nga xamante ni nitee lool xam adduna lool mun a doxalin lool. ku xam adduna dina bàyyi ay nitu démbam. waaw bien sûr loolu loolu laa la wax ni ay jafe-jafe yi nga xamante ni. Mhm. c'est des choses yu ñu war a rectifier bientôt yàggutul dara. parce que ñooñu. parce que yéen a dem ci élection di ngeen ko def. non non loolu président Macky ah, dafa yor emploi dafa yor euh, dafa yor programme. nga xamante ni. ñoo ñun en tant que jeune apériste en tant que responsable apériste en tant que militant apériste de première heure ñu ngi ñaan son excellence monsieur président Macky Sall na jëlaat njabootam ñooñu ñëpp parce que ñoo ñëpp li ñu mën a li ñu ko mën a euh, yokkal kenn kenn mënu ko xam parce que de ce fait que ñu toog suñu wet rek lu yokkutee la seen appareil bi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar est-ce que yaakaar googu moo ngi ba léegi est-ce que yaakaar googu am na njëriñ ba euh, si yaakaar bi am na fii ba léegi. Hmm. <laughs> Ah, bien sûr parce que yaakaar mooy lan euh, président dañ kaa dañ kaa teg foofu euh, ay kii yu ah. parce que kenn jékki-jékkiwu rek indi teg ko ñu ne toogal yaay président hmm. non balaa muy dugg si si si si si gouvernement bi balaa muy jot nguur gi hmm. dafa dugg si Sénégal ba pare yan jafe-jafe la ñu am ba pare mu soog mu soog a mun a liggéey réew mi. et vraiment mu ngi si def ay au niveau de au niveau de Ndioum yéen ngi dund ça quoi coalition benn Bokk Yaakaar moo fi nekk ndax leader yëpp ñoo ngi ànd ci benn dynamique pour dem ci élection locale yu ñu jëm. non xam nga parti pouvoir moom ñëpp mënuñu àndandoo. ça c'est impossible. Mhm. moi je me moi je me rappelle. yow soo ne candidat nga tu déclares ta candidature. Cheikh Omar Anne doon maire te ngeen bokk benn parti. y a ah, ma la su la waxee ni tey. Mhm. euh, je me rappelle en 2008 2008 2009 2010 2011 ba 2012. Mhm. tey ñi wax nii yëpp ay candidat ñoom ñëpp per kenn si ñoom nekku ñoon suñu wet kenn si ñoom laa wax de nekku ñoon suñu wet. Mhm. man maa fa nekkoon je suis le militant numéro un dans la commune de Ndioum. bu APR bu APR. bu ñu créé parti bi confirmer loo wax si biir. Euh, dama ne. si biir Equivox TV euh, exclusivement dama ne. Mhm. je suis le premier militant de l'APR dans la commune de Ndioum. dans le département Podor on n'était que treize personnes. kon gars dañoo ñëw di la xatal. mais pas bon pas xaw ma xatal la xaw ma mais y un manque de considération bi nga xamante ni mu ngi si si si si si parti bi. mu ngi si si si si dans la commune responsable yi fa nekk ñoo la considéré wala nu mu demee non ñooñu mënuma ñàkk considéré parce que ñooñu ñoom ñëpp nag lu ñu fu ñu ñoom ñëpp man maa leen dalal nommément si teel mais le maire actuelle man maa ko dalal si si APR Cheikh Omar Anne ministre ah, de l'enseignement supérieur yaa ko dalal si APR yàlla xam ni maa ko dalal si APR loolu amul weddi loolu jarul sax ma koy wax di répété mhm. loolu répété ko mhm. yàq sama énergie mhm. waa Ndioum ñu ngi may dégg waa population ñu ngi may dégg waa APR responsable yi ñëpp ñu ngi may dégg. et au niveau départemental. parce que le coordinateur de l'APR euh, du département c'est mon frère c'est Abdoulaye Daouda Diallo kooku moom bi nga xamante ni depuis bu ñu commencé kooku mënuñu mësuñu tekkali ko man ak moom. le ministre des finances. boo boo ba léegi non waxal le coordinateur du département Podor rek. Mhm. jarul wax euh, ay ministre des finances si on parle de la politique. non parce que le ministre c'est le ministre des finances ko daalee biir APR tey nga ne considération amul c'est-à-dire. am na li nga xamante ni non considération amul moi je par je vous parle euh, au niveau de Ndioum c'est-à-dire que tey Abdoulaye ah, Daouda ci biir Ndioum parce que c'est-à-dire que munu man je peux pas comprendre yow nga ñëw ma dalal la keneen ñëw ma dalal leen ñoom ñëpp ñu ñëw ma dalal leen mais tey parce que on est au pouvoir rek ku nekk bëgg a wax ni je suis candidat wala man maay nekk fii wala man maay nekk fii nekkal candidat mais le parti va décider qui sera le euh, qui kan ma war a am récépissé APR mm-hmm. Et aussi, officiellement, tu as déclaré ta candidature, n'est-ce pas bon officiellement ma candidature c'est pour déclarer ñoo ngi lay bàyyi nga déclarer ko ci biir Equivox TV euh, fan yëpp si réflexion boobu lañ nekkoon mhm. si ay atelier mhm. ay séminaire mhm. vraiment di waxtaan quand vous m'avez appelé avant-hier en en ce moment j'étais pas à Dakar yooyu yëpp si ay préparation lañu ñu nekk d'ailleurs sax euh, mun naa fa lancer waale wane ni population Ndioum le huit incha allah. Mm-hmm. le huit allez-y waay huit. Mm-hmm. mercredi huit bii di ñëw. Mm-hmm. bu neexee suñu borom. le huit septembre. prés euh, Navel Thiam ak basam politique. dañuy def une assemblée générale bu rëy. ci biir dëkk bi. vraiment wone suñu position par rapport ak si élection yi ñuy jëm. loolu nag assemblée bi comme assemblée bi euh, le huit laay ko defee man sama déclaration duma ko def si télé mhm. duma ko def si rajo mhm. man damay dem si population bi mhm. ñi ma bëgg jiital ñi ma bëgg a fal ñoom ñoom foofu laay defee sama as euh, et puis invité invité naa leen yéen ñëpp le jour ji vraiment ñu demandoo ngeen gis lu fa nekk Equivox TV mooy res couverture médiatique ah, bi ah bien sûr vraiment avec plaisir parce que comme tey mooy suñu première émission mhm. et première émission bi yàlla def ni mhm. si sama modeste personne si man lay ko jaarale mhm. donc pourquoi pas yéen ngeen gérer couverture médiatique bi yëpp pourquoi pas loolu dañuy kontaan ci honneur boobu noonu mais Navel mu doon contexte boo xamante ni dafa metti parce que yéen biir APR da ngeen am coalition boo xamante ni léegi dafa gën a yaatu parce que mburu ak soow xew na fi lu nekk ñëw na fi nga bokk APR a dem est-ce que jafe-jafe yi natt nga waaw jafe-jafe yi natt nañ ko bon man euh, jékki-jékki ma rek wax ni je suis est-ce que jaru tamit nga def ay négociation ngeen toog waxtaan ba ba tànn le candidat idéal. xam nga balaa ngay tànn euh, walla ngay waxtaan. Mhm. Euh, il faut nga gis ñi ngay waxtaan. Mhm. mais tey. Mhm. tey ci biir ci biir njum. loolu amu fa ñun politique li ñu si xamoon. ñi bokk parti politique bi même bu dee dañuy xeex dañuy xuloo dañuy dóorante mhm. nañuy wootante ñu waxtaan mais loolu moo amatul loolu ça n'existe plus dans la paire loolu mosuma ko gis temps PDS amoon na temps socialiste amoon na mais APR rek ngay gis réunion huis clos wala réunion ci biir ministère wala réunion ci biir yenn kii bërëb yi yaa que APR yaa que ñun rek ñoo koy def nii vraiment c'est déplorable parce que tey euh, boo gisee ñëpp xante bi bëri na APR xeex bi ak yenn buuxante mooy li ma la wax rek xam nga tey. Mhm. man je peux pas ma xam ni tey benn ma nekk fii balaa dara di dara man bàyyi ma ba président Macky Sall jël nguur ma ñëw si APR. Mhm. man ba bu ñu wax ni aha ñu ngi waaj a créer parti bu tudd fas bi si la ñu dem toog ak président Macky Sall waxtaan ak moom lu leer jël ay kaddu waxtaan ak moom lu leer tout la journée et puis je l'ai ma ne ko président Macky Sall tey mënuñu toog nag ñu nekk ay membre fondateur di parti ëllëg ñu jël pouvoir bi ñeneen ñëw rek vraiment ñu ñu ñu jaar suñu kaw. kaddu yooyu ndax ndax kaddu yooyu ba ma ko waxee kaddu ndax moo ngi dëgër ba léegi. non kaddu yooyu dëgërul. kan moo ko dëgërul Macky Sall ou bien sa côté. mais c'est le président. moom moo dëgëralul ay kaddu. ah bien sûr parce que tey. soo amee lay wax président li muy doon. mais li may wax. si kàddu yu ngeen dénkante woon. mais soo gisee dox dox bi. mais parce que tey ba ma gisee boo gisee may wax ak président ma kàddu yi ma war a wax président mooy que na xoolaat nitam dëmb bu mu fàttee nitam démb et c'est très important li may wax nii. si fu mu jëm. parce que non seulement si fu mu jëm bu deful attention di yaakaar ni ñii ñëw fii léegi ñoom ñooy affaire bi il et balaa muy xam loolu bu élection yi bu jaaralee nii nii locales yi day am ay surprise yu bari man mii. xale bu ndaw maa gën a tuute si APR mais man maa ko wax et on le les les les choses. boobaa du ngeen may opposition bi li nga xamante ni moom mooy yoon may ko profit affaire yooyu noonu su ngeen jubawut seen biir àndu leen seen biir kañ. noo ñàkk juboo xam nga tey juboo mooy lan mais tey man mënu ma ñëw sa kër ma lay buntu xatal ma ne non man maay toog fi man maay toog fi mais boo ñëwee sama kër boo ma joxee yenn teraange yi boo ma joxee yenn yenn respect yenn considération yi mais man maay yëkkati ma ne ah non Ali waxtu jot na non jiital jiital. nga ne ma non yow yaay boroom kër gi mais man non non Ali jiital loolu considération la. ak générosité ak générosité loolu loolu nag moo amul si ñun surtout surtout au niveau de Ndioum nag responsable ñu nekk foofu yëpp tey la plupart tey APR dans la commune de Ndioum APR la. bëgguñu Navel Thiam de bëgguñu Cheikh Oumar bëgguñu Kane Diallo bëgguñu Alassane bëgguñu Demb bëgguñu keneen ku ñu bëggoon mooy présent Macky la ñu bëgg parce que président Macky Sall réalisation yi mu def foofu vraiment mérité wul tey. ñu ñu euh, ñu bunta xatal nit ñi. ba nit ñi dem nit ñi di féewaloo ba nit ñi dem si beneen beneen beneen yeneen kii. parce que euh, non nit ñi dem si yeneen parti yeneen non si yeneen liste c'est-à-dire que tey pas yeneen parti tey man euh, j'attends réaction APR si lu yàggul bu ñu jëlee récépissé APR jox ko ku mu ku leen neex mais y a pas de problème. ñun aussi da ngay dem sa yoonu bopp. Ah, bopp. Navel mais man tànnuma sama bopp c'est non man li ma wax euh, lu leer nañ la. Mhm. ma ne les élections à venir. Mhm. tey non seulement xam nga wax naa la dañuy yor benn assemblée générale bu tenir le huit à Ndioum. Mhm. et Sénégal yëpp dinañ ko gis Sénégal yëpp dinañ ko dégg. on triche pas ñun du ñuy xoolal ba may jógee fii euh, dem Fuuta sama benn oto boobu laa yóbbu du ñu luwee oto du ger ay yeneen nit et puis ñi war a ñëw si assemblée générale yëpp waa Ndioum lañ et puis c'est des électeurs. c'est pas des tricheries c'est pas di waxtantu waxantu nii nii non ñun soxlawuñ président Macky Sall keroog bu mu ñëwee si tournée économique gi wane nañ ko suñu bopp foofu lu tax ñu wane ko su suñu bopp mais en ce moment j'étais avec coalition euh, euh alliance avec euh, un frère mais kooku léegi euh, man ak moom àndatuñu il faut que ça soit très clair aussi tey kooku day dem yoonu boppam déclaré sax candidature am lu yàggul si nit ñi si yow la kun wala si nit ñi kenn genre affaire non non non pas ànduma kenn mais ma ne la ñi ñëw si APR dans la commune yëpp tey ñi nekk foofu yëpp. man ma réclame le boss mais aussi tey ñoom tamit seen niveau dafa yaatu. mais non seen niveau kenn bañu loolu. Mhm. mais man képp ku ñëw boo moo joxee loxo ma jox la loxo boo buggee ñu liggéey li ñu liggéey mais boo ma buggee wane du ma dara. Mhm. mais euh, ku nekkul dara loolu yàlla rek a xam. la joxoon kàddu gi ci biir Equivox TV ne la looy wax waa Ndioum ak looy wax responsable yu fa nekk ak élection yu ñu jëm. sa message lu muy doon sama message mooy dal mooy jàmm parce que Ndioum vraiment mérite euh, jàmm quand même ñun tey nekkuñu fii di xëccoo wala di buumante wala di yenn kii non tey ñun en tant que jeunesse en tant que jeune en tant que fils de Ndioum wa ñun li may lancer appel si si responsable yi mooy ñoom ñëpp nañu xam légitime bu fi nekkoon légitime bi fi nekk mhm. la légitimité loolu dafa am solo si parti mhm. mais légitime boobu na xam ne seen doom boobu ba léegi mu ngi fii mhm. et moi je suis pas demandeur c'est la population de ñoom en tant que tel ñoo ma wax ni yow la ñu kii yow la ñu jox démb rek la ñu def suñu assemblée générale démb j'étais chez moi avec euh, une journée de d'entretien avec euh, certaines personnes ay professeurs ay waa njubanaabe yooyu beneen kii bi waa Ndioum dañu nekkoon sama base yi nekk foofu dañu nekkoon foofu di liggéey démb foofu lañ nekk ba vingt 22h démb di liggéey donc chaque jour am nañu ay pro ay programme kon sa candidature am na ñu koy togg. mais mais sama candidature ñoom ñoo koy togg man bu mun bu fekkoon ne man maay jékki-jékki rek wax ni bëgg naa mais su boobaa du am benn sens boobaa soxlu ma ko sax du ma ko soxla mais waa ñoo ma bëgg a yéen li nga xamante ni et puis xam nga mairie Ndioum coono kese la. da parce que man bu si buñ ma falee tey. je euh, damay am disponibilité à la prosie je ne veux pas être comme les maires là lu ñu def nii de être maire nekk Dakar nekk ministre nekk directeur général non je le ferai jamais mais man si je suis non laisse terminer man su ma su ma su ma nekkee su ma nekkee su ma nekkee maire mhm. je serai chez moi je serai auprès de la population nekk ak ñoom mais il est obligé am na loolu loolu règlement yi am na test yi am na am naa si yoon euh, may na ma ko. ok suñ paree si loolu Navel di nga xam ne si actualité yi nga xamante ni moo xew Sénégal nit ñaa ngi préparé wu dem bindu ji surtout les primo électeurs. Hmm. léegi ban kàddu ngay lancé en tant que candidat non en tant que citoyen sénégalais ban kàddu ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo war a dem bindu ji te gis neen ne bindu bi yéex na trop. waaw li may ñaan sénégalais yi rek. Mhm. Euh, surtout ñu tolloo si bindu. Mhm. ñi nga xam ne dugg nañ si dix huit ans fii ak euh, vingt deux janvier war nañu voté nañuy dem bindu ci li may ñaan sénégalais yi mooy surtout les politiciens yi nañu bàyyi affaire tricherie yi jël euh, carte waa Nioro parce que waa ñooro sax ah, ñoom Ali Thiam samay xarit lañu ma jël seen carte ma dem yóbbu leen njum di leen changer ay lieu de vote et ça la le c'est di jël carte waa Thiès waa Dakar di ko yóbbu njuum njum tricherie la di jël carte jéeri bi fi nga xam ni bokkuñu njum di leen indi njum pour bëgg yokk électorat parce que xam nañu euh, du ñu am dara foofu tricherie la tricherie boobu nag vraiment ñu ngi ñaax ñu ngi ñaax sénégalais yi ñu ngi ñaax population bi nañu nañu bàyyi ku nekk mhm. dem voté ji fi nga sentir voté mhm. bañ a def affaire politiciens yi di dajale fii ay électeurs di dajale parce que man tey ñu bàyyi nit ñi seen liberté de choix wallaay xoolal tey man mhm. samay militant man deew ma ba léegi mhm. deew ma si si si fu ñu changer lieu de vote pour xool ñi nii mhm. xam nga tax parce que xam naa ni ku nekk am nga gëm-gëm ku nekk am nga bëgg-bëgg kenn du la force kenn du la jënd te bëggoo influencer mukk du ma dem fenn di xool di kii ba ma demee si centre euh, inscription yi. Mhm. xanaa ma yóbbu leen ay gel wala yóbbu leen ay masque yóbbu leen ay ndox ñu naan. Mhm. à part ça bugguma foo dem. Mhm. j'ai pas besoin de ça. ñun li ñu soxla mooy gëm li ñu yor xam ni bu dee ni benn nit la ñu yor suñu benn nit boobu nañu nañu votel bu dee ni amuñu benn nit boobu et on verra les élections euh, yàggutul. ça c'est pour quelque mois. loolu y a aucun problème. donc ñu ngi ñaan population yi na ñu bàyyi Sénégal yi dem voter dem inscrire yi mm-hmm. bu ñu bu ñu buntu xatal kenn bu ñu jël fii ñu ne non mairie bi nangul joxe résidence bi domicile bi fee la nekk noo koñ nañ ko nitu diw nitu diw la nañu bàyyi loolu et puis loolu ñu ngi koy ñaax surtout suñu mbokku politiciens yi la plupart si ñoom la ñoom ñooy dem di changer ay lieu de vote jàmbur di di parce que non pas retarder c'est euh, non non no san mm-hmm. dépend si politiciens yi parce que boo nekkee politique nga gëm li nga doon nga gëm nga xam ni vraiment am nga base dëgg dëgg am nga base sa dëkk mais tu n'es pas besoin de ngay jëlee fii ay militants Dakar wala Thiès wala feneen nga ko yóbbu sa gox. Mhm. c'est pas la mhm. da ngay dem bu dee gëm nga da ngay dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom nga wan leen sa candidature lii la. jërëjëf nga kii ko euh, parce que et puis ñun on n'est pas on parce que ñun population bi. ak ñu nekk suñu ginnaaw. Mhm. ñoo ñu ngemb ñoom ñoo ñu jox war a jox. Euh, par rapport à ce qui s' est au Sénégal ñuy jaale le peuple tchadien ki nga xamante ni mooy seen président génne réew mi. si Covid 19 si contexte yu métti la ñëwee woon Sénégal mais mu dem ba mel ni mu sénégalais lan ngay wax si génn àddunaam te équipe Equivox TV yëpp ñoo ngi koy jaale famille am. di ko ñaanal yàlla mu xare ko àjjana ba ñoo ngi ko war a suul fi nga xamante ni mooy yoof waaw loolu de ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm-hmm. vraiment di jaale mbokkam ñëpp mm-hmm. donc bakken moom bu musoo dund rek di nga musa dee mm-hmm. xëy na nii la ko yàlla tuddee euh, vraiment yàlla yóbbu na ko barki démb tey ñu war ko jébbal ñu ngi leen di ñaanal rek yàlla na ko yàlla oui vraiment un grand monsieur donc euh, Sénégal ñëpp ñoo ñàkk Tchadiens yëpp ñoo ñàkk surtout moom Afrique surtout moom waa Sénégal Mm-hmm. moom léppam fii la ko defee mm-hmm. donc kooku sénégalais yi rek lañ ko war a jaale boo mm-hmm. gisee ñu jullee ko fii euh, denc ko fii parce que dañuy jàpp ni considéré comme c'est un sénégalais doon femme modèle surtout vraiment ñu ngi leen di jaale ñoom ñëpp vraiment bon est-ce que si Covid la wala du Covid l'essentiel euh, yàlla yóbbu na ko daal confiance suñ suñ médecine parce que Covid la ñuy wax te gëm surtout vraiment di ñaaxaat nit ñi nañu respecter les mesures barrières comme ni ñu def nii nañu sol seen masque nañu def seen gel mhm. mais set suñu yonente bi ñoo ko génn njëkk loolu alxuraan moo ko njëkk a génne mhm. loolu balaa ñun di euh, covid di ñëw wala ak yooyu ñu wax ni ñi raxasutee nag yooyu nañu moytu gisoo euh, une semaine bi lan moo ñëw apollo moo ñëw mhm. apollo ñëwaat na gi euh, nit ñi loolu nañu gën a respecté surtout si set bi jërëjëf Navel léegi yaa ngi biir Equivox TV bi la nga fi jóg sa mbokk militant yëpp dinañ la seetaan sa base yëpp dinañ la seetaan lan ngay wax sa militant yi ci Equivox TV pour ñu dem abonné si li nga xamante ni moom mooy suñ seen YouTube di commenter di suivre lu ñuy def te yaakaar naa yow la ñuy jug di nga di nga abonné. loolu <laughs> man ci la bokk. Mhm. man si kër gi à partir d'aujourd'hui moom. Mhm. vraiment si kër gi laa bokk. merci beaucoup di leen di encourager waat bu baax a baax. Mhm. di leen di vraiment wane ni affaire bi moom. dara xëyul sotti. lépp loo gis ndànk-ndànk la mhm. euh, tey boo gisee El Hadj Ndiaye tolloo fu mu toll ni mhm. boo gisee Youssou Ndour tolloo fu mu toll nii ak ñu rek doy nañu exemple mhm. donc nañu bu ñuy defee ndànk rek lépp day ñëw di leen di encouragé bu baax et di ñaax képp ki nga xamante ni yaa ngi si base politique Navel Thiam vraiment gën a abonné si si si si si plateforme bi bi nga xamante ni donc dinañ amal njëriñ Mm-hmm. amal leen njëriñ amal njëriñ réew mi mm-hmm. donc loolu laa amoon surtout di wax ni euh, nit ñi waa population de Ndioum dañ lay bàyyi nga tàggoo waale nga waxaale ci Equivox TV voilà mm-hmm. donc euh, si loolu la ñu nekk donc tàggowaale bi rek mooy que di leen di jaajëfal donc euh, vraiment surtout yow Ali en tant que frère vraiment yàlla boole ñu lu yàgg nag donc tey bu ñu ñëwee fii ginnaaw yàlla ak yonent bi yow la mhm. ñu ngi leen di jaaf jaajëfal bu baax di la encourager donc di la wax ni fi nga teg sa tànk foofu la mhm. bul ko teggee mukk boo mhm. amee gëm-gëm rek euh, yàlla day euh, wane lépp donc di waxaale euh, population de njuum seen doom daal mu ngi nii di ñëw donc li ma war a déclarer foofu ci biir dëkk bi Mm-hmm. incha allahu rabbi yàggatul mm-hmm. suñuy egsee c'est un mercredi 6 septembre dañu mm-hmm. euh, le 8 septembre la ñuy war a def suñu assemblée général foofu si biir njub pour vraiment wone suñu position par rapport ak euh, li nar a ñëw donc euh, et puis loolu du sama du man maa ko choisir sama bopp donc loolu moo tax ma gën a sawar si affaire bi waa njuum ñoo ma wax ni vraiment yow la ñu bëgg vraiment nga ñëw jiitee ñu donc loolu bu ma doyul dara du ma doyati. merci beaucoup parti bii nag maa ngi jox respect ak considération parti mm-hmm. APR. Mm-hmm. di leen di wax ni donc euh, tey lépp lu ñu def na nañu xoolaat si li ñu def du njum kese si gox yi yëpp bu ñu deful. Uh, attention mm-hmm. dinañu am ay surprise yi nga xamante ni et bëgguñu ko si euh, si affaire donc ñu on est pas des militants yi nga xamante ni rek dañuy ñëw pour uh, gouvernement ñëw na rek ñu ñëw bu pouvoir jeexee rek ñu ñu bàyyi pouvoir non mhm. nous on sera pas des transhumants ñun dañuy nekk militant mokk maa ko wax fii et denc leen les images denc leen les images man ma nekk transhumant APR ah. bu dem non non non sa c'est les élections locales mhm. bu APR jëlee récépissé bi jox ñu mhm. xayru ñun dañuy dem bu ñu joxee keneen y a pas de problème et l'essentiel appel lépp lu mu def ëllëg na xam ni lii ñu ñoo ñoom ñoo ko def ñu assumer seen responsabilité pour ëllëg merci beaucoup donc di leen jaajëfal di jaajëfal sama ñaari waajur yi nga xamante ni ñu ngi si dëkk ba mhm. sama yaay euh, Fatimata Mamadou Ñaagaan mhm. donc euh, ak euh, El Hadj Bachirou Lamba Thiam bi nga xamante ni suñu waajur yi tëdd ba léegi ñu ngi foofu vraiment saa bu ñu yeewoo ñu dëgg seen voix gis leen dañu gën a am cawarte ak lépp di def mention spéciale à madame Thiam ma chérie donc et mes enfants j'ai mm-hmm. deux enfants ñi nga xam ni kenn ki mu ngi Anjum mm-hmm. vacances donc keneen ki mu ngi fii donc pour encourager euh, militants yi ak mm-hmm. ñëpp daal ñu xam ni fu ñu teg seen tànkal foofu la et bu neexee yàlla affaire yi si kanam rek la jëm. merci beaucoup incha allah vraiment maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. merci Ali. di am mbégte ak contentement di la gërëm bu baax a baax Navel Thiam ci loo accepté ñëw toog ak ñun. sa calendrier xam na te barki démb lañ la ko wax ñoo ngi si sant di la gërëm bu baax a baax di wax ci mbokk internet yi ñu doon seetaan ci biir Equivox TV plateforme bi libre na pour yéen ñëpp ngeen dem abonné pour encourage ñu si li ñuy def parce que dafa doon équipe boo xamante ni ay jeunes dynamique ñoo ko taxawal di sant suñ cameraman ki nga xamante ni moom mooy Modou Khoule ak suñ technicien Habib ñu wakay wax Biba Seck ak directeur général nga xamante ni moom mooy élage Hadj di leen wax ne seen yeneen numéro moo ngi ñëw ganu Equivox TV te lu ñuy gën a sawarloo moom mooy seen commentaire yi moom mooy ngeen dem abonné si sit bi yaatal ko bu baax a baax di partager lu ñuy def wasalaamaaleykum wa rahmatullah et à très bientôt mes chers merci beaucoup